gone bu yorul jikkoy tan dara dana la dogale bis mu ko fa tan mu mel mu ne tan tan med rek lay dundé ah, kon da tan yàkkamtiwul dogalu yalla rek tan mhm. yàkkamtiwul dara dogalu sun borom rek lay xaar te nee na gone yi xaaratuñ ko dañ ko bëgg salfañu salfaañe ba mu bëgg ko gaawam mhm. mu ne tan bu dara doon sukuraat téeméeri at Cheikh ne day tokki ci wetam di ko xool rek ndax rus na jëfëndiko la ko yàlla santul ndax moom ci medd lañ teg mbiram daan ne mu wute nag yéen da ngeen a yàkkamti lépp xam nga xale yi da ngay gis xale bu am 30 ans naan milliard <laughs> bu ko amee dox ñetti at nga dégg ne dee na ndax Cheikh Ibra nee na yuréet moom pëng rek danañ yàlla mosal ci nee naa doom da leen ñaan wërsëgu sawum gëlim wërsëgu sawum gëlim nee na gëlim danaan cararararar ba nga ne eh mu mel ni da ko nee na gëlëm danaan cararaaraar ba nga ne eh mu mel ni da koo dégg taxaw. na xanaa saw. ba nga ne gërëm bi xanaa dootul saw. moo commencé naan car nga ne waaye daa mel damaa dégg. mais wërsëg bu demee noonu rek borom dana gudd fan. waaw nee na moo tax gëlëm yàgg fi. dana am te yàgg. gaa na gaa yi defi na moo raw ñëpp laa la wax. ku dul sëñ Touba moo la raw. waaw kon lu tax gaa yi defi na liñ gis mooy loolu arrangé wu leen ñoom. waaw kay fi ne nii ñoom. liñ gis moom mooy moom yuréel rek. yuréel te yuréel pëng.